شيء أجنبي ويسو فيه النبي الله ينعرل بي الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى نورني وتيكي لا ينتر ملك يوم الدين ولا مالك يوم الدين سيهاد mu ne boo dee jàng fatiha yow jullit bi mën ngaa jàng malik yawmi diin bu àgsee ci arrahman rahim mën ngaa wax malik yawmi diin am na ci qura yu ñu jàng malik yawmi diin am na it ñu jàng malik yawmi diin jàngi ni alquran yi daanaka Sénégal warsh ak xaf ñu ëpp ci ñoom moom lañ ci xam dafa nañ ne ñaari jàngin rek am warsh ak xas yaakaar nañ ne xas aw jàngin bu bees la te warsh ak xas ñoo ñëwandoo te du ñoom rek ñooy jàng ñooy ñooy njàngin yi njàngin yi mat na fukki qiraa qiraa bu nekk am na ñaari riwaaye muy ñaar fukki jàngin yi alquran yu bokkul sénégalais bu nekk war naa def itteem pour ñaar fukki jàngin yooyu lu mu ci mën a xam mu xam ko lu mu ci mënta xam te mën a fexe ba doomam xam ko mu xam ko te jot na pour Sénégal jot ci alquran lépp comme ni mu déggee woon ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala kulli xaal jàng maliki yawmi diin lu muy firi loolu mën tax a jóg tey ci jàng maliki yawmi diin lu muy firi ndax yooyu ñaar ñoo bokk firi wala bokkuñu firi déedéet bokkuñu firi maliki yawmi diin li muy tekki moom dong ngay buur sa bis penc ba daana bu àllaaxira yàlla rek a doon buur maaliki yawmi nag li muy mboolem xew-xew yi xew ci àllaaxira yàlla moom lépp moom rek moo fay def di fa dindi bokk faak kenn dara kenn bokk faak moom dara moom rek kay def lépp mooy dindi lépp na ko neexe kon nag yow maliki yawmi diin wax ne yàlla moom rek kay buur yowmal qiyaam maalik yowmi diin nag da ngaa wax ne yàlla lépp li xew ci yowmal qiyaam moom dong moo ci am ak soppandiku moom dong moo ci yor def ak dindi moom dong moo cay dogal mu ne yowmu diin nag mooy bisub fay bi yowmu diin li ñuy firi mooy bisub atte bi wala bisub fay bi mooy yowmal qiyaam di sa borom yàlla bis boo xamee ne di sa borom yàlla ñëpp dañuy daje ci kanamam mu daal di wax ne al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat tey jii la ñuy fay bakkan bu nekk li mu fàgg ci jëf yu baax wala yu bon des na ko fay laa zulma al yawm te tooñ amul kenn du tooñ bis loolu mi ngi ci suratu Ghafir aaya ko juróom-ñaar ci suratu Zalzala ci ay ñaari ay yu mujj ya la muy wax mooy fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara sa borom yàlla day wax ne képp koo xam ne def nga ci lu baax lu toll ne bépp benn pepp pënd ci lu baax da nga ko gis ku def ci lu baax lu toll ne benn pepp pënd da nga ko gis ku def ci lu bon lu toll ne benn pepp pënd da nga ko gis يا أشخاص يتسمون بالملك يصفون أنفسهم بأنهم ملوك سواء حاولوا أن ينازعوا الله ملكه في الدنيا كفرعون ونمرود أم لم ينازعوه كملوك زماننا أو غيرهم فإن الآخرة لا يدعي أحد فيها ملكا ولا يحاول أحد أن ينازع الله فيها الملك لتختار الله تد بطا ملك يوم الدين من mooy buurub bis penc في moo في ci في si am بور fi fan yële paase dafa am ci mbokk yu ko ma ne buur sàngam dee na muy buuru benn ci réewi jullit yi ma ne ko seetlu nga li nga wax buur du dee buur du dee mukk buur judduwul te buur du dee waaye su fekkee ne bii am na ci àdduna ñuy tudde seen i bopp ay buur moo xam loolu dañ koo booleeg jéem a xëccoog jéem laa wax jéem a yàlla nguuram gi li na walla wala Namrud ndax firawna dafa wax Moussa ne ko wax waa waa misra ne leen maa alimtu lakum min ilahin gayri mu ne man xamaluma leen jeneen yàlla ju dul man loolu la firawna waxoon xam ne ne googu mbéy si ëpp na mu ne alaysa li mulku misra wa hadihi al anhaaru tajri min taxti mu ne xanaa du man maa moom nguurub misra ne lim moom ni mu néewee lim moom ni mu néewee nee na nguurub misra moo ko moom namrud moom dafa dafa waxoon ne moom mooy yàlla moom mooy buur ba mu yàgg sax mu ne ko tabaxal eh, ab tabax bu jëm kaw asamaan mu ngi leen di wax yaatuwaayu sa yàlla asamaanam jox leen ko ci misaal mu ñàkk dama leen ne bu ak roppalaan goo xam ne mën naa daw ci gaawaayu ñetti téeméeri junni kilomètre ci benn seconde ñetti téeméeri junni kilomètre ci benn seconde avion bu ko gaawee seet màkka la fi ak nàngam ma leen avion boobu mën naa daw ñaari mën naa daw naa ñetti téeméeri kilomètre daa leen waxoon door a àgg ci benn ci biddiw yi loolu du biddiw bu sori bu biddiw bu ndaw bi nekk ci chimal ñu koy wax al qutbu chimal yi wala euh, étoile polaire mu nekk ci gennu grand petit ours wala ab dubul asxar wala banaat naa yu soora biddiw boobu avion bu gaawee ñetti téeméeri kilomètre par seconde ba doon wuti ko dina dem ñeenti téeméeri ak door a àgg te boobu biddiw si biddiw yi gën a jege la bokk biddiw yu sori yi dëgg dëgg ak avion boobu mën naa daw milliard milliard laa ko def milliard ci ay kilomètres te tax mu àgg ci biddiw yu kon loolu asamaan juróom-ñaar dafa yaatu lool Firawna nag moom nee na misal daal la moom te misal gi lu tuuti lu bokk ci Afrique xam ngeen ne kooku xam yëngu tax lu géej gi waaye ma ngay jéem a xëccoog yàlla nguuram nga kon ci àdduna am na ci ñoo xam ne dañuy jéem a xëccoo ak sa borom yàlla nguuram gi ba tax ñu tuddee seen bopp buur am na fi ñoo xam ne xam nañ ne duñu yàlla jéemu ñoo xëccoo ak seen borom yàlla nguuram gi waaye teewul ñuy tuddee seen bopp buur waaye loolu ci àdduna la bu àllaaxira moom kenn tël sa tuddee sa bopp buur àllaaxira kenn du fa ne buur la ndax doo ko tal waaw bu mu ngoog boo gisee sa borom yàlla jàngalu maliki yow mi diin mooy alaxira kenn du fa ne buur laa kenn du fa tudd sa bopp buur te itam bu fekkee ci àdduna si am na fi ay nit ñuy wax wala ñu leen di waxal ni ñoom am nañu benn def ak benn dindi ci ci ci mbiri nit ñi wala ci mbiri àdduna bi am na ci nit ñu yaakaar ne diw moom mën na laa lor wala mën naa mën na laa jëriñ wala mën na laa yëkkate wala mën na laa wàcce wala mën naa ubbi sa wërsëg wala mën na koo tëj wala mën na laa fal wala mën na laa fal bu fekkee dafa am ci nit ñoo xam ne dañuy woote wala ñu leen di wooteel la ñoom yor nañ dara ci dafa bind ci adduna bii loolu ci adduna la yem waaye bu alaxira ñëpp daañu am lu leen leer ci ne kenn rek ka yor dafa bindi ci alaxira wallaay ak ci adduna itam te mooy borom bi subhanahu wa taala loolu moom dong moo fa moom dafa bindi moo tax maalik yowmi diin bu alaxira nga xam ne àllaaxira da nga gis buur boo xam ne xamoon nga ko wala musoo koo gis a daan nga ko dégg wala njiital réew moo xam dañ ko tudde président moo xam ni ko mën a tudde boo xam ne su ma fan di dem fenn eh, eh, eh, cortège bi dañuy ànd ak moom moteur yi dar ko wate yi dar ko mu ngoog ay fasinaari góor dar ko garde rouge yi wër ko fu ne coow na gañ ñu koy rëkkal ay musique di ko rëkkal hymne national di ko lalal ay tapis rouge yowmal qiyaamati nga gis ko mu dekki ne dung mel na ko ndeyam jure woon def yaramu neen def peppu neen laa wax de def tànki neen di dox faale kenn faalewu ko kenn wuru ko kenn andul ak moom andul ak kenn loolu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamal ne nit ñëpp noonu la ñuy mu ngox mu ah buur ci àllaaxira buur yi wala ñi doon tudd seen bopp buur te xam nañu duñu buur ak yonent yi ak awliyaa yi ak sëriñ yi ak borom xam-xam yi ak borom alal yi ak faqiir miskin yi waram daraja yi amul daraja ñoom ñëpp ku dekk yomal qiyaam yaramu leen ngay def maa ngi leen di xamal ne sayidna rasul alayhi salatu wasalaam nee na nit ñi ñëpp كدك يوم القيامة يوم آه، آه، آه، يرم ينقيد مل ننسى كان يجروني دم دميرا دو دو دو دو سالي دال دي دي امو فو دو سالي يلي دي نونغوك ليريا نيجي كتن أدوكو تي يلي وا الجنة كموم سما نيجي تكن خمو قول الجنة غيدا ولا سفر أها الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم من yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis boo xam ne bu wér la ndaxte ñëw na ci buxaari ñëw ci muslim sayidna abdullah ibn abbas solo ko sayidna sunu yaay aïsa radiallahu anhuma solo ko ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen nit ñi ñëpp bu yowmal qiyamate yonent yàlla muhammad may wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen nit ñi ñëpp bu yowmal qiyamate dees leen di dekkal ngeen def yaramu neen def peppum neen di doxe tànk neen kenn du sol mbaxa dal doon ay aat mbokk jullit yi ndax xam ngeen ab aat xam ngeen ko kay ab aat mooy koo xam ne duggagul néegub góor bi maanaam kenn xarafaloo ko bi ma daan ñu xarafaloon ci àdduna mu ñu ko moom ñu daggoon mu wadd yàlla da koy delloo si delloo ko ci moom na mu juddoo woon ci ndeyam dara du ci manqué bañ bu damoon day ñëw loxo bu daggoon day ñëwaat mbuñu ko mu ñu daggoon docteur bi dagg ko wala xasalkat bi yàlla da koy delloo si muy moo moo mooy mooy xurlan mu ngoog bu ko ngeen ànd ak seen i mbuñu ko def yaramu neen def peppu neen def tànk neen ñëpp na la ñu amul yonent amul buur amul sëriñ amul borom xam-xam amul borom dara ñun ñëpp dum dum di yonent yàlla Muhammad waxee loolu wa su ne ko waaw ñëpp dañuy def yàlla mu neen góor ñi xool jigéen ñi yonent yàlla Muhammad def bu góor xool jigéen xanaa da nga koy tal loolu kenn du fa talal xool kenn kenn talul loolu aha bi yonent yàlla Muhammad waxee loolu sallallahu alayhi wa sallam mu daal di yaanu kama badaakum kama badaana kama awwala xalqin nuiduhu mu mu jàng la sama borom yàlla wax ci alquran ne nama sakka woon doomu aadama mu juddoo noona ca yaayam ab bëñ manquewul te waxtoom waree sax bu ñu ko manquewul dara sax dara manquewul taxudu la noo leen ngeen jënd ko ci man seen sëg yépp addaat ak yéen aha su ko defee nag kay jëkk a sol mbubb ci waa aljanna la bokk yeneen yàlla boole ci waa aljanna kay jëkk a sol mbubb mooy yonent yàlla ibrahim loolu la sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam aha سيدنا محمد نانا صلى الله عليه وسلم تبوبا بناك جيس نانا نبطتي سما خيطني ولا تي سما أصحابي نانا نجيس اللين جار اللين سيوم سمي وجمل النار جهنم سبحان الله يبقت خيط محمد صلى الله عليه وسلم أم تضعي بقت أي صحابة جمل النار جهنم سيدنا محمد نينا صلى الله عليه وسلم من جيد واي جيد بايل نين كي مان لاني بوك نينو يا رسول الله داغا خمول لا خاو واي باغا فا جوجي ني داغيو فاتو وون لاغا نيكون نيكو نيكا اها بوكا دافا يونس الله محمد نينا بوغ مانا ني داغا فا جوجي لاغا نيكون يا تي صحابه نيكو نيكا وون ما داري واخ لا لم واخون موي لان ا سا بروم يالا مان كات دا mënoon na maa seere la ñuy def waaye nag ba ma génnee adduna bàyyi leen ko yow yaay ci xam la ñu doon def kon nag yow dong yaay mën a at subhaanallah lam koy teg mooy ñoom say jaam lañu bu boo leen mbugalee ñoo la tooñ boo leen leen ñoo la tooñ boo leen jéggalee nag ku am ak sañ-sañ nga am xikma nga mo mo mo Seydina Muhammad dar na atta ñooñoo bu ci dugg sax bu leen di bàyyi ak su xadis boobu ay dërsandiki yoo xam ne war nañ cee bàyyi xel bu baax xadis bi ma wax nii dërs yu bare bare bare ci ne il faut jàngat ko benn dërs par dërs wala ñu jàngat ci liñ ci mën a jàngat bu fekkee ne bi jàngat nañ ko jàngat bi li muy jëriñ mooy nu lañ batte càmbar suñuy pas-pas ak suñuy ngëm-ngëm sunuy fas fas suñuy ngëm-ngëm buñ ko dëndal ak hadith bi li ci dëppoog moom ñu sant yàlla te téye lu ci wuuteeg li hadith bi ëmb ñu jëm ko soppi te xam ne danaa war a fas ñu jóge ci yàlla jaar ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu lañu war a gëm aha وأية عاقبة غير واردة عن المولى جل جلاله بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وغير ثابتة في كتاب الله ولا في إنما هي عقيدة فاسدة وأماني يتمناها الإنسان لا يفيدها بما خلق شيئا li nga xam ne bëggoon naa cee bàyyi xel bàyyi loo ci xel képp kuy dégg kàddu yi moo di ne lépp lu nit gëm ak lu mu ko gëm gëm lu xol ba fees fees ci gëm loola te loola yàlla waxu ko ci alquran ne mooy am jaarale ko ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidina muhammad jàngal nako ci alquran wala mu jàngal nako ci ay ahaditham ak sunnam bépp ngëm-ngëm bo xamne ne jaarul foofu ku ko mën a gëm fee boo nga xam ne sa ngëm-ngëm boobu ngëm-ngëm bu yàqu rek la fee dula jëri dara jëriñ dara yomal xiyam yàlla yàlla jéggal te jubal nu te may lu ay ngëm-ngëm yu jitt ak ay pas-pas yu dëppoo ak alquran ak sunna aha bu ko defee na ak ku ko mën a gëm ak ni mu ci mën àndal ak lu mbolo ma bari bari bari ak fas-fas yooyee mu gëm fas-fas yu mën a doon ak fu mu mën a jóge ak fu mu ko mën a jële bu fekkee boo xoolee alquran doo ko ci fekk boo xoolee li li ñëw ci xadiis yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci buxaari ak muslim abu daawud tirmidi nasaai ba mu tuddul xadiis bi yax ci xadiis yu wér yi bu fekkee doo ko ca fekk tey boo nga xam ne gëm-gëm boobee ak cànkute rek la tey tam gëm-gëm bu yàqu la tey tam lu ko borom yaakaar yaakaar lu mu fees fees ci xol ba bu alaxira لا ولا daa xala perte waaye du أولا أن جميع الناس عظيمهم ووضيعهم ملوكهم وسلطتهم الانبياء والاولياء والمشايخ والعلماء والوجهاء والاغنياء والفقراء فيحشرون يوم القيامه في مرتبه واحده هي مرتبه العبوديه لله تعالى. وقال في هذا الحديث دين وخليج موجب في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم te jaar te nekk ci buxaari ak muslim sunu yaay aïsa nettali ko radiallahu anha sayidna abdullah ibnu abbas tam nettali ko radiallahu anhu xadis boobu li ñu ciy jëkk a jële moo di ndekete nit ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yonent yeeg awliyaa u yeeg sëriñ seeg borom xam-xam yeeg borom alal yeeg miskin yi amul daraak borom daraja yeeg borom mbooloo yëpp ndeke nit ñi ñëpp bu yomal bu ñu dekkee dañuy bokk benn martaba doon jaami yàlla kese ñëppay doon jaami yàlla ñëppay def yaramu neen ñëppay def tànki neen ñëppay doon jaamu yàlla jaami yàlla xam nga dama ci amal dara ci adduna bu dekkee yomal xiyaam mbumu mbumu bu sot sax amu ko nan ne ko ndeyam jur woon ba mu doon liir xam ngeen ne at lii ñu juddoo lañ ko lëbësa wallaay nga jaay ko ko ka ko doon dooñ waaye moom mënul boppam dara yowmal qiyaam nag mu màgg gannaaw bu mu màggee xaw ma daa doon buur xaw ma daa doon borom xam-xam bu rëy xaw ma daa doon sëriñ doon mu nga doon borom daraja ju réeréeréy ay mbooloo yu bare bare bari ànd moom waaye gisee bi yowmal bu dekk du dekkawaale ci yooyu dara dara dara dara dara lu milliards yi bari bari bari du ci dekkawaale dara dara dara wata yeeg kër yeeg taax yeeg lal yeeg yëf yu bari du ci dekkawaale dara dara dara dëngu dugg na ko ndeyam jure woon ak sant neen lay judd la lay dekkee ñun ñëpp du bokk doon jaamu yàlla yéen képp ci loolu. mën na la ba ci yonent yu mag yi te ñuy ulul azmi ulul azmi mooy yonent yàlla Nuux alayhi salaam yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Moussa yonent yàlla Isa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yi mag yooyu nga xam ne ñooy ulul azmi sax kenn ku ci nekk da ngaa saa bopp laatal saa bopp laatal nafsi nafsi nafsi xam nga ne foofu wali du fa wax xam nga ne foofu ak sëñ du fa wax xam nga ne fa borom xam-xam du fa ñetti ab yonent boo xam ne xam ko yàlla ab yonent boo xam ne wax sa ndaw yàlla bu demee ba naan tey ji yàlla daa mer mer moo xam ne musu ko mer te du ko mer ci mukk man tey saa bopp laatal bu fekkee yonent yi lii la ñuy wax moo ko ñun fu lu jëm. gis boo xamee ne di bakkan du mënal moroomum bakkanam tus bu tus booloo jeex te loolu kat yàlla ko wax yàlla moo ne yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yowma idin lillah loolu jàng ngeen ko baat dañ leen ci alquran ngeen ngeen jàng ci suuf infitar ci aaya fukk ak juróom ñeent yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an bis boo xamee ne di bakkan du mënal moroomum bakkanam dara nit du mënal moromum nitam dara wal amru mbir mi nepp nepp lépp yow ma idin ci sent do bi lillahi day sax ñel yàlla dong dong dong mom dong mu am sen sen mom dong mu yor def ak dindi aha li la alquran wax lillahi yàlla wax aha te lolu bok na ci li maliki yawmi din di firi maliki yawmi din mooy yàlla dong mooy yor def ak dindi moom dong moom mom ngir yowal qiyam yàlla ñu yeram ci boba yàlla na fekk jaaroon nañu ci ndigalam ci ci àdduna ndax boo leex waaw ñu mën jël jël dara ويود لو يتركهم جميعا الى الجنه لا يتخلف منهم احد ولكن هل يكون له ذلك ان غير بعضهم ما كان عليه هو واصحابه. حديث بدال في الجسر لنا درس ابن عربي درس نياري دي حديث بن لون كاي جيلي سي لي يمن كان محمد وخ الله عليه وسلم ني دانا جيس ني بوك سي سما خيت ني باجي بوك سما اصحابي دي جيتال لين جار لين نيوم سي يونو سام جبل النار جهنم ما يوخ اي ديت ديت بلن يوب نيوني في نين لين جيمي سما خيت ولا بوك لول لي سي جانغاتي موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دا بوجي خيت لول يمن كان محمد دانو بوك لول danoo bëgg lool ba nu gënal ko ak noflaayam gënal ko jàmmam gënal ko lekkam ba suur gënal ko nelawam ba bëgg lool waaye muy bëgg bëgg xeetam wi mëggee bi àjjana ci bu sañoon bu àllaaxira day jiital xeetu lépp dugal àjjana kenn ken def waaye ndax dana ko am ndax dana ko am daañu gis ci xadis bi ne ci xeetam wi ñi nga xam ne dañoo jaarul fi mu jaaroon teguñu seen tànk fi Sayyidina Muhammad tegoon tànkam كما القران والسنه كان عدم جار فلن وسيدنا ابو الاخر آية سيدنا محمد بجين في يوم دار سيتم دين الاجنه يا نساء المسلم وفكر بنا صف لين على محمد يقول الاسلام دي ديري صف حين البوليتيك مهم ديري صف آية لا يجينا امجن امجن امجن باو صف dañen di sapp bu tey ngeen sappi bu tey ngeen bula bol la ngeen wax bu la ngeen wax da naw la ngeen ñuul l'islam kenn du ko soppi ko soppi ni sayyidna muhammad nekkon ba la xala dem na jahannam صلى الله عليه وسلم يلا يلا جبل إيه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله ومهما يكن حرصه على أحد من الأمة فمتى تيقن أنه انحرف عن الصراط المستقيم وارتد عن منهاجه الطريق فإنه يتخلى عنه درس نعطي دليل في حديثه ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم lu muy bëgg bëgg xeetam bi bu yowmal xiyaamate képp ku mu xam ne yow mii da laa jàddoon yoon yu mu jaaroon nag ci saxaabaam jaaroo ca da nga koo sotkoor jaar ci leneen day laa di gën ci yow rek balaag yàlla dégg naa ñu ne xaw ma daa amoon ñu yóbboon ab néew ba ca armeel ya ñu di ko suul ñu gas ba mu xóot ñu suul ko daal ne yàlla sab jaama ngoog bu defee lu baax yéen a xam yéen ñaar bu defee lu bon yéen a xam yéen ñaar waaye koo xam ne ci jaaroo fi sayidna muhammad jaaroon صلى الله عليه وسلم تكتب تانك سم تغن تانكم نغو بولا خلا سابرنا سيدنا محمد سيدنا محمد لي وخي الله ما يصب جاب نغو يلا خب ان جن ناج كن نك جيب نك لوخ ما سمم دارا كن بوك لن سي باي خل ليجي تجيما تجيما جانج سنة تجيما جانج سنة تجيما جانج القرآن السنة تجيما جف لف لن من فل تك سن تانك فسيدنا محمد تغن تانكم صلى الله عليه وسلم حذو الحافظ للحافظ قال لي في إما أن يقول عن القرب منه كما في قوله صلى الله عليه وسلم قد قد في حديث الأول وإما أن يتخلى عنه تماما ويقول مخاطبا ربه وكنت عليه وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه كيف كو خامنا يوم القيامه نيونا صابر بعد سيدنا محمد صلى كيف كو خامنا يوم القيامه نيونا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لبا خمنا يومين نكو شربو نكون تلو سبسان كفما توقن تان كمشي القرآن السنة كم نتنيا دي جلائبا فلا وخري صري صري كم نمي يوكي حديثي كوثرة لأن شاء الله محمد نيانا صلى الله عليه وسلم بو الآخرة بين كوي جبل جيد بين كوفا ميون ولا بل كمورين بين كوفا ميون مي وخ كوثر مام أي كفي بري مي تنك دي جس خيد وني نان di tànk di joxe ñuy naan bu ko defee ñëppay mar bu ko defee dana am ñu bokk ci xeet yi seen ko bëgg ca ndox ma bëgg a naan di ñëw di ànd si malaaka yi di leen bëmax di leen bu sayidna Muhammad seenee sallallahu alayhi wa sallam ay malaaka ñuy bëmax lu bokk ci aw xeetam di leen bëmax pour ñuy sori te naan déet waaye bàyyil ñoon ñu ñëw bàyyil ñoon ñu ñëw sama xeet lañ bokk malaaka yi duñ ko naan yaa rasulallah da nga xamul ñii ba nga fa jógee la ñu ba nga fa jógee dañoo sotti la nga nekkoon nekkuñu ko woon bu ko defee Seydina Muhammad lu mu leen di tontu mooy suxxan suxxaan nañ ma sori nañ ma sori kon boog koo xam ne nekkoo ci alquran ak sunna bu àllaaxira benn Seydina Muhammad dàqale na la sori ma suxxan suxxan wala mën a yàlla say jaama ngoog man ba ma fa nekkee laa mën a xam lañ doon def waaye ba ma fa jógee xamatuma luñ doon def yow yaa fa nekkoon yaa ko xam kon nag boo leen mbugalee say jaam nag ñu noo la tooñ boo leen dee baal kon dok mu nonu kep ku jaaw ci alquran ak sunna kenn ci yooyu ñaar boole dal yéen yàlla jéggal ci fekkal lu alquran ak sunna may nu tawfiq ni jàng ko te feese ci sunuy pass pas-pas ak suñuy xalaat ak suñuy wax ak suñuy jikko ak suñuy jëf danañ ci yàlla dimbali ñeenteel gi dërs bu ñuy jële ci xadis bi moo dina ndekete malaaka yi bu àllaaxira buñ gisee koo xam ne kii daa bokk ci xeetu sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam waaye jaarul woon fa sayidina muhammad jaaroon tegul woon tànkam ci àdduna ci alquran ak sunna malaaka yi dañuy da dañuy seere ne kii kat jaaru woon ci yoon wa jiital yóbbu naa la jahannam bu ko yonti bu xoolee tam di wax rek génn naan mu ngoog. قالوا أن إذا كان هذا وكيف منها في أقوال المشايخ والعلماء مع أتباعه كدر سبيل جيو ما دي موين بكي جنا أمسلا فرنون في سوا سنغان مدينة بفكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لين جنگة في حديث موين لأم دي جمع خيطم بي تمام موين سيدنا بيوغن تموين انت خيط بي تمام موين كلين جنا بغ تمام موين كي اللي جنا خجل وي كي جنا جدا يالي تجامي وي كي جنا تنتني bu fekkee lii mooy doon xaalam ak xeetam wi sama ku ci jàdd yoon wa mu nekkoon waxul ci yow dara lu dul sori ma demoo fu dul laali jahannam waaw kon suñu diggante ak suñu sëriñ yu baax yii nag ñi nga xam ne ñooy suñuy sëriñ war noo jàngal diine te suñu sëriñ yooyu yoruñu ay diine yu bees de diine ñëwul gannaaw sayidina muhammad de sallallahu alayhi wa sallam kon ba suñu sëriñ yooyu bu fekkee ne bii sayidina muhammad moo ñu dul jéem a yóbbu aljanna sax suñu sëriñ yooyu ñoom nit ñi nit ñi yóbbu aljanna aha te kenn ku nekk ci ñun sénégalais yi am na sëriñ boo xam ne bii dafa jàpp ne dafa gëm bu baax ne sëriñ baa ngi koy xaar yowmal qiyaam pour bu àllaaxira mu yóbbu ko aljanna kenn ku nekk ci ñun gëm na sëriñam ngëm gu toll ne jàpp na ne sëriñ baa ngi koy xaar yowmal qiyaam moom aljanna lay dem bu àllaaxira sëriñ yóbbu ko aljanna loolu leen gëm ñun ñëpp جنال ين سن دم دم بابنا أكلي سيدنا محمد وح صلى الله عليه وسلم آه دون تلاك مم نيتال بدي جارو في القرآن السنة جنبل القرآن السنة خمكو جيمو تجا إتم تجا جنال سن جدكو يبع جنال أغنم بنا لولو خم جنال إفتس بسيكا خم دنبا آه boko defé tayé dëgg nga xamné ay fas fasam déppou tak fas fasé sëñu bi nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay ngëm-ngëmam dëppoo te ngëm-ngëmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye teewul jàpp ay jëf-jëfam dëppoo te jëfi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye teewul jàpp na daal am na sëriñ boo xam ne ma ngi koy xaar yawmal qiyaam sab'a lay xaraab mu yóbbu ko aljanna fi ngeen xam ci ni ah والخلاصة أن موضوع الإيمان باليوم الآخر وما يحدث فيه من أمور موضوع خطير إذ هي يتفرع موضع الإنسان. قبل جلالي درسي يا يولانا سكت بابا حبيب waaye liñ ciy jële ci tënk liñ ciy tënk moo di lu jëm ci mbirum ak les ak li war a fas ak liñ ci war a bàyyi xel lu dangereux lu mat a bàyyi xel la lu am solo la lu diis la ndax sa ngëm-ngëm ci àllaaxira ak na nga koy bàyyee xel wala na nga koy sàggane sa dem aljanna wala sa dem naaru jahannama ci loolu la ko yàlla aj yàlla aju ko ci sëriñ aju ko ci mbooloo moo bokk aju ko ci tariqa boo nekk أن في جماعة بونك من أكل نرت نحصفن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يلا جني وقت القرآن تبدو فبسرين تبدو فنبولو تبدو فبطريقة تبدو العب جماعة إسلامية لم تبدو ماي محمد محمد لا يلا تبدو صلى الله عليه وسلم تبدو فكنان دون أن تجسروا بني سنين القرآن لمن كان إبراهيم ولا يوسف ولا يونس من جنا جستيري سورة القرآن وآية سعر وغير نفسي سيري خبار أما محمد موم صلى الله عليه وسلم من لا ليال لتدك القرآن يبغن كتبفي بو الله إكرام ويبلن الجنة سنين كتبفل لنين من هذا السخلو بو الله إكرام ويبلن الجهنم محمد دم صندوق لون انت باية سلبو باخ باخ باخ صلى الله عليه وسلم آه. لور يلا وقت القران سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقشي شيء حديثا مودنا يوم القيامة كان أبو فدار الله يدفع له جدي كل البرم أسمان الصوف من دون في أم أبسن سن من دون في الناس المكي أدفع الجدي أها فإنه حتى سيد الأنبياء عندما يدفع فإنما يدفع أولئك الذين يتبعون من فجدل جدل رم أمنا ramm am na sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jëkk a ramme si dina ram nit waaye ña muy ramm mooy ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci alquran ak sunna di ci nab nabi di ci góorgóorlu yàlla dogal nag ñoom ay manqué manqué ngir seen i càggante doon jégglu yàlla seen i bàkkaar bari yéen koy le muhammad ramm leen fekk ñoom ñu ngi woon ci alquran ak sunna waaye nag bakkaar yi bari na ba dañoo war a dem naari jahannam yonent bi tiñu leen ramm leen ñu dem aljanna loolu mooy sart bi sart bi mooy yonent bi kam yu ramm day fekk mi ngi woon ci alxuraan ak sunna waaye ka nekkul alxuraan ak sunna ko ko soppi dañ ci yér naa Muhammad di wax mooy lim di jàngal ci ci xadis bi ak xadisu uh, uh, uh, xawdu ba te mooy nañ ma sori nañ ma sori ku nekkul ci sayidna ci ci alxuraan ak sunna wala xalaat sayidna Muhammad mi wax na na ma sori na ma sori ñi ci nekk nag di góorgóorlu am ay manki manki mën na cee am ñu yonent bi ramm yal na yàlla boole tey ñu yonent bi ramm sallallahu alayhi wa sallam aha amma ulama wa masail fa inna ba'dhum minhum yumkin an yakunu min ash-shafi'in ولا يمكننا ولا يمكنهم ايضا ان نعلم ونحن في الدنيا من منهم سيكون شافعا ومن لا يكون te dëgg dëgg it borom xam-xam yi ak sëriñ yi dana ci am ñu ram ne loolu dina am borom xam-xam boo xam ne bii jàng na bu baax te la mu jàng jiital na ci alquran ak sunna bu baax ab sëriñ boo xam ne jàng na bu baax la mu jàng jiital na ci alxuraan ak sunna bu baax ab sëriñ boo xam ne kaamil bi benn saar ump ko ci la mu ëmb ab sëriñ boo xam ne bi buxaari ak muslim ak sunan yeeg masaan yi yëpp mu waxtaa lépp xam na xam na ko bu baax te ma ngi koy jëfe di ci yar ak njabootam sëriñ boo xam ne wala borom xam-xam boo xam ne ma nga teg tànkam ca siraatal mustaqim ma nga teg tànkam ca fa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan teg tànkam di ca góorgóorlu di ca yor ak njabootam sëriñ ku baax soo sii dina ci am ñu ram ne borom xam-xam yu baax yooyu dina ci am ñu ram ne waaye nag kanag kanay ram ne ci ñoom du ñëpp de kanag kanay ram ne mënaguñu koo xam ci adduna nun mënagunoo xam sëriñ buy ram ne ak bu dul ram ne léegi ci adduna xatta sëriñ buy ram ne àllaaxira sax mënagu koo xam ci boppam léegi loolu il faut ñu bàyyi ci xel. تيتم أن لو خمنا ورنن كو خم كدي رمك سرين ولا رمك برام خم خم مودينا رمك سرين ولا رمك برام خم دفع أم ياري سر ساتب جوك دي موي سرين دي رمي يلا موكو جوخ نجدن كي نكو رميال خم لن نبو الاخرة نبو نطي يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن مش بقى خمان دي روح ده يتهو ملائكة يتهو الصفة نس يبقى نتكل نبرم كند وقت يلا واحد صوت النبا كند وقت لدن كو يلا جهن جدل حملنا دماء جل للرمي واي واي سنين بيت برام خم خم بيت سالي بيت ينن بلا كند واحد غير أم جدل في يلا kon sart bi tax sëriñ rombe ñaari sart la bu jëkk bi mooy mu am ndigal ci ramne lay ma sart bu jëkk bi ñaareel bi moy bu amé ndigal bay ramne bu def na day seet rek ko neex mu ramm ko mu ne kii day sama dooma dama koy ramm ci day sama talibé dama koy ramm dé ci day sa mbokk dama koy ramm déedéet déedéet yàlla moo koy jox ndigal nako yow da ngay bok ci ni ramme waye ramal diw ak diw ak diw ak diw muy ñaari condition pour rammuk serigne wala wala borom xam-xam condition bu jëkk bi mooy yàlla moo koy jox ndigal ci ramme kenn du ne ren lépp yomul xiyaam naan ramme te kenn wax loolu doo ko ñeme sax yàlla moo jox ndigal ci seen jiw yow rammeel loolu mooy sàkk bu jëkk bi bu ñaareel mooy moo la daan rammal jiw ak jiw ak jiw ak moo lay sàkkal koy ramm ak koo dul ramm benn sëriñ laa wax ne sama doom danaa ko yóbbu aljanna mun ta nekk bu mënoon a nekk kon yéen ci yàlla nuux mën a yóbbu doomam joojee ci safara kon mu benn sëriñ mu ne laa wax ne la saa baay danaa ko yóbbu aljanna bu ma ne nekk kon yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam abu lahab mi nga xam ne moog baay ma bokk ndeeg baay abu talib mi nga xam ne ni moog moo ko yar moo ko doon dimbali moo ko car kon man la ñu yóbbu aljanna waaye kenn la ci yóbbul aljanna kii ram ne yàllaa koy wax kan ak kan lay ram nit yàllaa ko koy wax bu ceegën lay ram ni ko ko soob yii mooy ñaari sart yi nga xam ne moom mun na yàlla tëral ci sa ci sart yi sartante ci rammuk ab sëriñ wala borom xam-xam yal yàlla boole te ram na mhm. rek mhm. yàlla ram na ginnaaw bala ngaa ram na da ngay am ndigal te ki ngay ram na da ngay am ndigal ci ramm ko ginnaaw yow doo ramm ko la neex ginnaaw yow la di nga bokk ci ram na te boo ci dee bokk yàlla mo nan diou diou ngay xam loolu koy mo yàlla rek na rek moy lépp day del siwaat ci li waxoon ci yàlla doon wax bi mooy maalik yawmi diin yàlla do nga yor defak dindi ci àllaaxira yàlla nañ fa fekk jammu yàlla nañ fa fekk njëggal yàlla nañ fa fekk yermal ak jere mom bi fadlihi wa rahmatihi wa karam aha فلننتبه إلى هذه الحقائق عقد عقائدنا على الكتاب والسنة حتى تكون نافعة ومفيدة لنا في الآخرة. قد وقت جلدي أنا رياليتي لما وحي لك حديث بي. ak jàngat yi ñu ci jàngate te itam nu sambaraat sàmbara suñuy pas-pas jëm ko dëppale ak li ñëw ci hadis bi ak li ñëw ci alquran ak ci waxi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax suñu pas-pas yooyu ak suñu gëm-gëm yooyu man noo jëriñ dara fa yàlla waaye li nga gëm gëm ko lool ba sa xol seef ci dell te ngëm gëm googu sa borom la la reconnaître ko nangu ko boo demee allah xaritam da lay da nga am ndett rek kon mbett yëpp mbett mi ci yées mooy mbettum alaxira ndax kenn du dellu adduna yàlla na yàlla jéggal te jubal ñu wala bu dul loolu sa ngëm-ngëm boo xam ne yaa ko gëm te xamul amul fenn fu mu tege ci alquran amul fenn fu mu tege ci waxe sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu ngëm-ngëm xam nga lu ko alquran tuddee bëgg-bëgg bëgg-bëgg la ko tudde xam nga yahudi yi ak nasaraan yi xam nga li ñu gëm ñoom jàpp nañ ne yahudi nee nañ yahudi rek rek aljanna chrétien yi di bokkaale di yàlla di jaamu jésus ñeen yi ak chrétien rek dem aljanna xoola bu ngëm gëm sa borom yàlla ne ne wa qaalat al yahud wa nasara wa qaalu lan yadxula al jannata illa man kaana hudan aw nasara sa borom yàlla nga ñett li nee na yahud yi dañoo wax ne kenn du dem aljanna ku dul ab yahud nasaraan yi ne kenn du dem aljanna ku dul ab nasaraan ko dem lee nit nang koy wax ko dem lee kenn ku nekk ca tariqa ma nga naan kenn du dem aljanna dul ko nekk ci tariqa bi waaye yahuud ak nasaara ñu ko waxee sans borom yàlla xam nga lu mu tontu dana tilka amaaniyuhum dana loolu seen bëgg-bëgg rek lañ wax waaw sans borom yàlla seen bëgg-bëgg rek lañ wax qul haatu burhanakum yow Muhammad nee leen andi leen seen tegtal luy seen preuve ci ne yéen yéen a dem àjjana bu fekkee wax nga dëgg lu lu preuve bi mu ngoog kon boog ñun jullit ñi léegi ci àdduna nañ jéem a xàmme te nañ jéem a caqale diggante ngëm-ngëm ak pas-pas bu wér وخمنا يلدكو امدك القرآن ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحكو في سنة من كو تقلق قص قص بو خمنا ولا نمدن بو خمنا نو كي وح واي بو كو فك فن فك لن تبتد بو كو فك فن فك فك القرآن وخي يو جاري خيتي نمدن من لن خمنا تجاب تبو جك بسمو تبو جدي أهان بدأت بلن حديث وحن نونك بخاري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحن بيوم القيامة يلا بين نفسوسي سنة جورمبا نب أسمان جرمنا سنة جورمبا دادي بكون نبي دنا دنا لاتك دنا من ماي بور أنا يدور بور بور لشكو سوف يلا بيكتي سوسي نبكو yëkkati asamaan si nëb ko daal ne man maay buur tey de ana ñu doon buur buur lu ci kaw asamaan ku ñu yaakaar na mooy doon bu kenn kenn ñu mu wut a siddi kenn ñu mu wut a wax kenn du wax yàlla rek mooy maliki yawmi diin moom dong mooy buur yawmal qiyaamati yàlla na yàlla may moo gëm nguuram googu te nangu ko ci àdduna te jébbal ko suñu mbir te jaar fa mënu jaar lool te jébbalu ko suñuy bàkkaar. هذه أيها المسلمون هذه أقوال الله تعالى لم نفعل اكثر من نقلها وحكايتها كما وردت وقد وثقنا كل ايه وكل حديث بان ذكرنا السوره ورقم الايه والحديث وما سمعه والجزء ورقم الصفحه ورقم الحديث وهذا كل ما عليه. ينبغي جيمس جيمس وعبد جيمس اي اي القران يسمع برمي الله وقت القران. أقي أحاديث وخدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موقع وقت حديث من ذر te aaya bu si ne wax naa leen saa wa mu ne ak ni mu raqmu aaya ba numéro aaya ba xadis bu ci tudd tam nee naa leen ci téere sàngam la nekk ca tom numéro sàngam ca page numéro sàngam xadis ba di xadis numéro sàngam man nag loolu moom la mooy li ma war mooy jot li leen li yàlla wax wax leen fu mu ko waxee ci alquran jot li leen li sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax leeral leen fu ko waxee ci téere xadiis ngeen mën a dem vérifier seeti ba xam ndax ba nga xam ne bu ne dama fekk insha allah taala man nag loolu mooy li ma war la man tam aha amma nag xadiis bañ koo wax aaya yooyu ma bañ koo wax ndax su ma ko waxee day naqari ñenn ci yéen ndax loolu ngeen may conseillé ndax loolu ngeen may digal man noppi bañ a wax axadis yi wala aaya yi ndax su ma ko waxee dana naqari ñenn ci yéen ndax da ngeen may digal loolu اها ملاحظه اخرى هي اننا في درس بغرفه كون لي سيتلو رك موي li mu jàng tey malik yowmal qiyam qiyam foofu yàlla yàlla may tawfiq beneen ajj mu ñu leeral yowmi diin mooy lan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi dellu di sàkku ngeen ñaanal na suñu borom yàlla mu jéggal ñu xam nañ daanu taxaw ci kanamam yowmal qiyam taxawaay boo xam noonu rek yàlla rek taxawaay boo xam ne sunu sëriñ du fa ne sunu baay du fa ne sunu soxna du fa ne sunu xarit du fa ne nun dong yàlla dong yàlla seet ak ab dayu soo li def maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ma ma fekk fa jàmm fekk fa njëggal fekk fa yërmande fekk fa ngërëmam loolu sama dayu bëgg-bëgg mooy lool te lii may wax lépp ak li may def lépp loolu dong laa ci wut ñaanal leen ma am ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu